asalaamaaleykum mbokk internet yi safoo saa su nekk BP Actu ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci teewlu ba ngeen ñuy teewlu saa su nekk te nag Seneweb bi ñuy leela affaire Dash Plan boobu ci xewoon muy lan groupe ba xale yu góor yi doon jël photo xale yi jigéen yi di ko publier sur réseaux sociaux yi di leen def ay chantage ba yoon tegee si ñoom loxo ba tey fële na la ci tribunal bi nga xamante ni mooy juger les flagrants délits ki nga xamante ni moo di Serigne Mansour Sall ak Mamadou Gueye alias moo ko ñaax tëj nañ leen lu toll ci six mois de prison ak sursis waaye Ibrahima Boye ak Serigne Béthio Thioune moom bàyyi war nañ leen info réew mi comme ni mu koy defee saa su nekk dañuy indil ay information yi xew ci réew mi jamono yu ñu weesu indiloon nañu bagarre bi xewoon foofu noonu ci assemblée général bii nag set fois ci conseil constitutionnel la ci boppam ñoom ñoo doon xeex seen biir ki ba ku ci mel ni Mimi Touré nga xamante ni moo fa teewaloon waa Benno Bokk Yaakaar xaw nañ koo gaañ ba tànk bi am problème sécurité bi ñoom ñoo ko mujjee sauvé jël ko dugal ko ci oto mais foofu metti woon na trop suñu laamu dañu xamal ne Double lees bi nga xamante ni mooy papay Balla gay 2 nee na depuis Balla Gaye 2 mu jóge France ba tey woo ko téléphone ñëwul ci moom seeti ko mais nag xam na ne ni coobare boppam parce que seytaane moo dox seen diggante lu ci mënti am mi ngi koy ñaanal jàmm ak salaam ci digganteem ak Modou Lo bi war a am le 13 janvier incha allah. Selbé Ndom nag président de la république Macky Sall la fay amee ak Marème Faye Sall moom di première dame mu ngi leen di xamal ni élection présidentielle yi di ñëw Macky Sall bu fekkante ni bëgg na ndam li ñëw ci moom rek il faut mu saraxee lii nga xamante ni moo di gileem ak giraaf te lu ci ëpp solo mooy mu dalal ko foofu noonu ci palais toog moom. mu boole ci respecté jigéen sinon Karim Wade dina ko gagné au premier tour. Yaya Jammeh day jafe-jafe mi mi ngi continuer di ko ëpp doole États-Unis d'Amérique tëjal nañ ko ay portam moom ak njabootam du jabaram du soxnaan kenn amatul droit ci ñoom dugg États-Unis d'Amérique wala nga fay am benn soxla sinon président bi mettre na ko en garde que si toutefois mu am dina am ak moom problème. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen joxaat dig daje ba suba incha allah si i xibaar.